asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen nuyu di leen ñaanal jàmm alaaji Malick ci kàddu gi gërëm leen sant leen ànd beeg ñun am na solo yàlla na jëm kanam ci information yi fii fii taataane uh, bis bu ne bala maa yaatal xibaar yi sàkku naa ci képp koo xam ne yaa ngi door a dab seen bi nga abonné coppati ko ndànk ndax abonnement boobee dana tax lu ñu mën di dugal ci information yi nga man koo am tey jii nag euh, tombe ak euh, juróom ñaari fan euh, ci weeru novembre bi nga xam ne mi ngi yebbeeku info matinal ginaar yi bu dee sab rek dëgg la yéen a ngi ci biir info matinal matinal merci ci abonnement yi objectif principal ci deux mille vingt cinq bi bëgg nañ ci indi ay xët Carlo Ancelotti mu wër a tëb loolee yaakaar naa ne fi mu toll nii junguru gi nga xam ne ñi koy junguru bari na mais nag dem ci objectif principal 2025 mënta ñàkk muy maanaam kii di Alphonse Davies nee naa leen ab contrant ba léegi ak Bayern Munich xaar yi gu ko kon ba tey jii fi mu toll nii gaa ngi koy toog di ko xaar ba tey ngir mu mën a ñëw foofee ci merengue yi mais nag objectif bi ëpp doole man pour man mooy Alexandre Arnold ab latéral droite boo xam ni yàkkamti nga ko yàkkamti ngeen ko yéen ñii di goney merengue yi ndax Carvajal ñëwaatagul kon fi mu toll nii euh, mercato bi lu mu laaj war ngeen ko cee mën a def ndax équipe bi nag euh, mi ngi ay jafe-jafe yoo xam ne nag xaalis rek moo ko ci mën a génne mais du gars yi ne ci terrain bi fi mu toll nii mënul dara ci merengue yi dañuy gën di yokku xaar mi kara war a ñu am victoire kon nañu teel a réparé bi mu jaar yoon milieu terrain bi ñu positionné ñett ñoo xam ne nag ñooy nekk dëgg-dëgg euh, ci milieu terrain bi loolee mooy équipe bu Real Madrid te loolee mënuta ñàkk tey ñi ngi xaar ki xam ni mooy kii di Carlo Ancelotti mu liggéey liggéey bi mu war a liggéey ah, ci bopp bi mbir Carlo Ancelotti bu sukkandikoo ci source ah, Valdano moom it li mu xam mooy bi sûr maanaam jàpp nañ nag dëgg sax maanaam responsabilité yëpp duñ ko jël daal di koy wëq ki nga xam ni mooy Carlo Ancelotti mais nag fii ñu wax ak yow ah, système ak tic-tac bi nga xam ni maanaam kii di Carlo Ancelotti ak football bi mu teg loole nag xaw naa maanaam ñàkk a cohérent maanaam di ànd bi xaw naa jafe boo xoolee système bi classement yeeg yooyu mënul mënu mënees na ni lu jafe la pour un man ci gagné dëgg-dëgg may jeexal wax ji ci moom xam le ni maanaam système bi il faut mu am fit fit bi moo ko manqué pas la mais nag il faut mu jox doom ji affaire yi nag bu ko defee maanaam mu am fit maanaam mana a classé ñett ñoo xam ne moom tout le temps dañuy départ boo xoolee équipe bi di Barcelone ñett ñiy départ ci kaw moom lu man di am moom moom changement mënta am euh, classement bi sax ci Barcelone moom nga xam ne yebbe ko na démb ndam Liverpool moo ne ca kaw def carton plein ñeenti match ñeenti victoire euh, sport wala Sporting topp ci di surprise am lu toll ci fukki poñ Monaco toppaat ci am fukki poñ ay surprise rek laa gis ma Brest di équipe bu France moom it topp ci am lu toll ci fukki poñ Inter de Milan fukki poñ ñoom ñëpp ñoo égalité ay points ci diggante maanaam euh, cinquième bi ba ci kaw Barcelone am lu toll ci juróom-ñeenti poñ moom mook kii euh, di Inter de Milan nga xam ne yaakaar naa ne ñoo xaw a euh, soreñe ci sixième place bi ak cinquième place bi Dortmund Aston Villa Euh, ñu ngi ci li leen di neuvième place bi